leen si rajo Ndeye wàcc waay di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen naan leen ñoo ngi ni stade stade Iba Mar Diop diggante Mbaye Gouy Gui Zarko ñoo ngi ci làmb làmb ji bëgg a dellu macha allah am na ñaari mbër nekk ci géew bi diggante Ramdane Junior Ramdane Junior ak Trompeur. Trompeur song na ko jàppantewaat nañu loo xam diggante Ramdane ak Trompeur combat bi yàgg na trop. waaw combat bi yàgg na trop c'est parce que ñoom ñaar ñëpp dañu focaliser wu si xeex bi fàtte bëre bi te lamb ji lu mu bëri bëri bëri yaa yaa suuf lay jeexee mais dama ragal ni ñoom ne cànnum de mooy waxtaan moom moo kii daaw moo di moo di defaat daaw daaw dafa ñu waxtaan ci lamb ji. mais combat bi yàgg na trop booy yi lan moo tax ñu lan moo tax yow mënul bëre wala moo xew. ku lay xool yi xam ñoom ñaar ñëpp mënoon bëre mais ci xeex bi trop ba pare fàtte nañ bëre bi te saa wi nii Ndam am na trois avertissement adversaire am deux avertissement la am soo may moom dafay fekk def lépp de telle sorte que ci xeex bi rek fàtte bëre su laa bu jeexee nii day ñàkk par avertissement. waaw mais xam nga lamb lamb ñaari mbër ñaari mbër combat combat mbëri ndaw wurul yàgg combat mbëri ndaw tamu ci yàgg ba ñaari combat dafa yàgg trop. Dame Bouré yow war nañu war seen bopp pour ëllëg ñu mën a mën combat. waaw mais nag ku xool ñaari mbër yi xam ne ñoom ñaar yëpp dañoo entraîné ñoom ñoom ñaar ñëpp dañuy gis ñoom ñaar ñëpp gis nañ ni dégage de force bi nga xamante ni ku ko yaakaaroon ci sa morom mais faaw faaw ñu tey daal

journaliste la moo tax bu ñëwul lamb du ñu añ journaliste day ñëw ba fii di añ di lekk ay peewale man li ma jaaxal la Ouzin añeewul këram ci biir lamb ñu lay añee ka peewale la laal ak chips <laughs> cameraman cameraman jëlal ma Ouzin cameraman jëlal ma Ouzin peewale lay añee peewale daa <laughs> bi jeex na de damay ragal damay ragal ramdaan

Thank you. combat arbitre bi sifflé na quatrième combat arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Pouye 2 ak Boy Sylla Pouye 2 Boy Sylla Pouye 2 moo moo xaw a xees tuuti mbokk yi ñoo booy xool ñoom ñaar dañoo xaw a bokk lu ñu niroo booy xool ñoom ñaar dañoo xaw a bokk lu ñu niroo ñoo niroo takkaayu xonk yeeg ngemb lu weex li Pouye 2 Boy Sylla Pouye 2 Boy Sylla Pouye 2 dem na léegi waaye demul Boy Sila moo ñëwoon ginnaaw kuy doo la nu jàkkaar lool eh Mbaye Gouy Gui gis na léegi lu neex ànd ak waa Bawol mu gis ci ñoom ñagas gis ci Tapha Tine ah kuy doo Boy Sila Windo Boy Sylla Windo ñi est-ce que bokkuñu sëriñ ñaar xale est-ce que bokkuñu sëriñ mosoy xonk yu ci tànk yi mosoy xonk yu ci ndigli mosoy xonk yu ci biceps yi moo fay xoog daan na jël ko Pouye 2 jël na Boy Seras eh daan na ko daan na ko Pouye 2 daan na Boy Seras il n'a rien compris daan na ba jéggi ko. moom it naa la gars yi. loolu. waaye sant bu baax. nga ñëwee. xanaa ànd ak ak dal rek ànd ak samay mbokk ànd ak samay am di jàmm ñëw pour bëree si jàmm daan dem ñu biir. sa ñaata combat. bi mooy sama onzième combat. ñaata victoire. Euh, neuf victoire benn défaite. nga am 11 combats 9 victoire ba léegi nga toll ci période bi nga toll. waaw mais xam nga rek euh, ñu war a bëreeg man ñoo nangu wut a bëreeg man xam nga ne ku bëree ku bëree 10 combats bii mooy sa am 9 benn défaite xam nga ne kooku ndaanaan la te desul mu laaj tey rek la laaj ndax ki ma ki ma war a dajal nii yàlla xam na ne bu ci yàlla génnee maa moom du làmb. mais comme dañ ñu ñi nangu ñi nga xamante ne nangu ñoo bëreeg man moom nangu naa bëreeg man moo tax mu jël ko pour bëreeg moom. bon sang si kanam. ok ñoo far léegi léegi. maa lay fay. ci loone sant yàlla. yaa ngi dégg paa bi waaw xam nga ñun moom euh, comme la may wax rek euh, comme la may wax rek mbëru quatre vingt mille ba mbëru cent millions ñoom ñëpp laa talal loxo man ñëpp laa bëreel ko. loolu bàyyi na pour bëreel rek dégg nga nga pare nga pour jàkkaarloo Reug Reug laa. Eh, mais xam nga mooy li may wax rek man du ma tudd turu kenn quoi en tout cas adversaire yi bëri nañu samay potentiel adversaire xam nga leen man xam naa leen amateurs yi xam nañ leen surtout loolu lépp. mais tey da li nga sañ sa lan la. ah tey da nga dellu États-Unis li nga sañ sa lan la. non xam nga dama yàgg a dugg dëkk ba nag loolu mooy problème bi quoi. mais sa sorte nga laa def sa ah, sa lakos. man neex laay génn italien wala espagnol lu ko neex. mais naka indi sa mbay waaw suñu frère waa di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek loolu la quoi wax dëgg yàlla parce que pare na min na terrain bi la res mooy ñaanal ko yàlla yàlla ko ndam mbay ku ji ku mënu mënu daan amul champion la min na fii nii. ku ñu mën a daan ku ñu mënul daan amul ñu bëreeg ay plus de quarante xam nga cent quarante kilos di leen daan bon Laros mooy ñaanal ko yàlla quoi loolu la. jërëjëf kontaan naa ci. waay kontaan naa ci yow. thank you man. foo toll DJ laa soxla DJ. DJ man DJ DJ DJ laa soxla DJ. danaa bàyyi feebar yëpp dem tànn Sidi. danaa. danaa bàyyi feebar yëpp dem tànn moo ma arrangé. DJ non. Didier laa soxla Didier. booy bi nag daa daw. da lay dóor bu ñu lay togal xeer moom. ma fenn. benn maa ko bi ko maa ko bi combat dama war a jël ñu bëree. ah. dama jël ñu bëree. dafa laa jëm. am. dégg nga waa. boo baaxul. regret Tapha Tine. dégg nga tuuti. sant yàlla rek la rek ndam waaw. mais làmb ji lan la laaj. tey rek jàpp ko daan ko incha allah. mbaa est-ce que dina am xeex. lépp la mën a am. waaw mais dinañ am ndam incha allah. fa jógee yàggul. waaw gis nga dam amaa jóge si ndam rek waaw ñëwaat fa seen defaat na ma doon def rek. tey dina yomb. non non de tey rek gën a yomb sax si kàttanu yàlla. moo teg loolu. si li ma eh, indi ak li ma li nekk si man ak entraînement bu wóor. koy bëreel. caatu waalo xaw ma caatu waalo. caatu waalo xaw ma loolu wax la. caatu waalo daal laa ci xam. Ah. waaw amuloo. xaw ma ko xaw ma ko. sama bopp rek laa xam. waaw. ak jaajëf. mais Mor nuyu naa fay naa la. ci loolu waaye maa ngi nii di sant yàlla. ndam nag neex na. waaw ndam moom neex na moom loo ko jëndee jar na ko. waaw. dimanche bi passé yaakaar naa ngeen doon bëree. heure bi fa la la maa ngi la fekk ci mu gaa nga xam ne damaa liw. waaw boobu dafa sedd boobu moom bi dafa métti. dimanche bi passé moom moo a sedd waaw. naka nga gisee làmb danaa nga jóge ci victoire sa diggante ak dab daan fan la la làmb mën a yóbbu. non Iba Mar moom bool bool yee ko moom. waaw tey de confirmé ngeen. waaw ah, moom bool bool yee ko moom. fii yëpp sax du ma fi déggee bool bool rek mu fees. Hmm. waaw maa la wax loolu noonu. fan nga jëm. donc maa la gis ngay laaj Tafa am bëri. wala lool non Tafa du ma ko laaj. Tafa sama morom la na ñëw ñu bëree. ñun ñëpp sama morom la na ñëw ñu bëree. man du ma laaj kenn aw ma droit laaj kenn naan nag sama staff ak sama entraîneur a ma xelalee ma ñëw sëgg bëre man loolu laa am. waaye dinaa jàpp ne daal combat bu jaadu la te combat bu neex waaw combat yi combat yi amateur yi am loolu kenn mënu ci dara. su nekkul dafa am mbër yaakaar bari na yow xam nga bu nekkul du tafa am mbër man wisuma ay tafa. xam naa ne mbër ndaanaan nga doo fi nekk naan du ma laaj kenn da xool jaar ko di bëri. waaw maanaam du ma laaj kenn du ma laaj kenn. kañ ba en direct na laa la ko wax kañ boo ko bëggee rek. waaw baax na dégg nga. waaw ok waaw mbokk yi ñaari xale yaa ci digg géew bi combat bi dox ci diggante Bébé Garga ak Palam 2 arbitre bi sifflé na Palam 2 moo moo ngem moo ngemul weex li Bébé Garga moo ngem moo ngemul xonk li ñoo ngay ñoom ñaar Palam 2 méb na léegi waaye Bébé Garga gaa ngi lay fekk di ko xool ñu ngay demee wet ñoom ñaar Bébé Garga Paname 2 Bébé Garga Paname 2 Paname waat na ko ci diggi géew bi siyaar naa la sant bu baax Bébé Garga Paname 2 xale yaa ngi liwaatoo ñoom ñaar Palame 2 Bébé Garga ñoo ngay demee wet ñoom ñaar congo amagul dooranteegunu jàppanteegunu Fadam 2 Bébé Garga Fadam lu weex li Bébé Garga moo ngeem lu xonk li Bébé Garga Fadam Fadam 2 na ko ci diggi géew bi Fadam 2 Modou Ragaagal Param 2 ñoo xoolante ci biir bët Param waat na ko ci digg géew bi arbitre sifflé waat na combat bi dox ci diggante Bébé Garga ak Palme 2 Bébé Garga Palme 2 Thank you. Fadam door na ko léegi Bébé Garga nga koy bëgg a jàpp waaye Fadam nangu ko taxaw doorante na Garga door na ko léegi dooraat na ko léegi ku mbaa duñ door mu daanu jël na ko Garga daa ku Fadam jàpp na ko Fadam bébé Garga Bala Diop Bala Diop ay Cheikh Mbacke xeex nañu léegi xeex moo ngi nekk école de lutte Balla Gaye madame madame de madame de madame de nga jàpp ci ngemb la Fadam ngay gën a dugg Fadam Garga jàppul fenn da koy tegal sees da koy daan waaw waaw Fadam do tegal na ko sees mu daanu tegal na ko sees mu daanu daan na ko jël bu rëy Fadam do Fadam do daan na ko Fadam tegal na ko mais na mu na waaw maa ngi raw gay loone maa ngi nii sant yàlla mel ni li nga doon wóor ay at fi mu toll nii moom am nga waaw alhamdulilah lan moo la dugal ci jot ah lu la dugal ci jot bëre da nga bëgg a bëre moo tax nga jël jotoon mais jotoon moom ñu fee bàyyi bëre bëre man mën naa bëre làmb ji ñëpp buñ ma joxee beneen dama jëlaat moos bi est-ce que dina daal jotoon man mënuma bëre dama xeex faa ma xeex loolu jéeg ñaar li droit bi laa indi sax loolu loolu mënul ñàkk bu def loolu. non mënul ñàkk mënul làmb lan nga war a def ñaari ba nga war a bëre war a dóor. Eh. Eh. ma sa kee nag dañu la namoon. waaw non gars yi demoon nañ ba foog naa fu ma romb weer naan man gën nga yëngal tëngëj allah ñu wax ñëpp ñaanal ñu di ñaanal suñu adversaire Jordan di ko ñaanal wér xam nga mu dem liggéey lu métti ñu ñu liggéey lu métti xam nga man mu yoro ma tuuti sax non man kon du mu liggéey lu métti ma liggéey lu métti bu ñëwee ñu bëre lambi góor lambi góor dafa rafle bu ñëwee ñu bëre lambi góor may wax waa ñoom ñoom xam nañ leen war man naa nekk si li war rek ñoom ñu nekk si leen war mooy jour si xam nga Tëngéej yëpp génne toog suñu ginnaaw ñu ñëw arène nationale duy ko yàlla may ñu ndam baax na waaw bett nga ma de bàyyi. da liw. waaw dama xaw a liw rek. doon ne sëriñ tay yaa am nga may jox. waaw sëriñ laa si benn côté. dégg naa combat fu mu toll. waaw léegi mu taxaw de est que taxawul sax. Ah, dégg naa taxaw na. waaw taxaw na. waaw. gaa nee na dangaa bëgg lu yomb man na dangaa bëgg du bëgg lu yomb. dox nañ adversaire yu bëri ñu bañ a jël combat bi. moo tax keneen ku ñëw rek dama koy jël quoi. waaw loolu moo tax ma jël combat waaw. est-ce que bii dina yomb. booy bi daa booy wax de. non moom Thiatou Nguéweul ñoo yem rek. waaw fu ma jaarale Thiatou Nguéweul foofu laa ko jaarale rek waaw. kon baax na ah, jàppal booy bi rek mais bu waxagum turam. waaw bu waxtu bi de ma def ci kot. waaw defal loolu dégg nga. ok lan la. saa mi wax waaw laamu la rek laamu <laughs> foo toll. waaw ah, ñu ngi nii rek boo boolee di xaar. Tidiane Faye nag laa bëgg. lan nga bëgg. Tidiane deuxième combat ba léegi ñu war a bëree gars yi du ko daw. waaw ma jaay doole. deuxième combat ba léegi ñu war a bëree. deuxième combat ba léegi. ñu war a bëree. ñu ci bëri na dañuy yaakaar da ngaa bàyyi. non ba ay bàyyi jege xool maa nga bàyyi la wala bàyyi la yow da ngay. kañ laa lay set. saa yoo bëggee rek boo ñëwee rek bëgg naa benn boobu mu tëbalaat cur cur cur. ñeent man xam nga man loolu laa bëggoon wax sa diggante ak Liss Ndiago. non yooyu booy du ma bëre ñoom nag champion la mais loolu combat du ko rek. samay njaboot la ñu nii samay doom Pokola yi mu la dégg nga naan benn booy mën nga ko may nii ñu lu mën a bëree man Tidiane Faye laa la wax bu ñëwee ñu bëree sa diggante ak Liss lamb daax non dama bëri waay bàyyi loolu waay bàyyi waay Liss waay bàyyi waay ci loolee. waaw sant yàlla bu baax. dafa mel ni fi mu toll nii kenn jàppaloo ci gàllaaj. waaw non non ay xale lañ ay jàpp gàllaaj amu fi de. non am na de. non non ay xale lañ loolu amu fi rek ñëw bëree que le meilleur gagne. tey noo xam nga ñëwee. waaw ñëw rek ak ndam rek. ànd ak benn télé bi ci tëri Grand Dakar NCB bi yëpp ak waa Bawol ak waa Saloum xam nga ak waa Mbor ñëpp topp sama ginnaaw kon tey ndam rek ñu war barke Serigne Bamba. combat bi dina yomb. waaw combat xale la warul jafe de. bu métti de incha allah. kon baax na bon sax. waaw bon sax ci kanam waaw. daa mel ne laa seetlu. non seetlu ma. bilaay. tey bésu loolu la laaj. dal rek. dal rek waaw. yàlla bi mooy sa ñaari combat. bi mooy sama quatrième combat. ñaari victoire. quatrième trois victoire waaw. waaw bi ak bii muy quatre bu soobee yàlla. yow bëree góor di wax quatre victoire. ah. bëree góor di wax quatre victoire. non bii de daa leer nañ. Ah. waaw damaa gëm lu ma liggéey gëm sa. kon baax la ok. voilà jaar waaw sant yàlla rek. maa ngi si jàmm. bés bi daal lan la laaj. bés bi dal la dal la gën a laaj. yàlla defal fi ñëw bi fi li jëlee neexul tey naka la naa dem. waaw tey dara yàlla wax maa xajoon xam naa dina ma ma ñaan tey si barke weeru weeru rajab bii. waaw dama koy daan léegi léegi takk si guddi gi maagalu maagalu a dina yomb. est-ce que dina yomb. arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi Pulum Junior Tekk jël Tekk ngi noonu Pulum Junior ak Tekk jël arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Pulum Junior Tekk jël arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Tekk laaj na Pulum Junior arbitre bi sifflé Pulum lu mu koy wax nee na ko yow ak mam ak leneen ak leneen <laughs> ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar teex a ngay étiré wu ak a booy FM xoolal ma teex teex dalal na ko loxo ma teex kii raxoon na bëreel teex a ngay jat dafay bari déedéet yaar naa la jeex lu mu def nii jot na ba génn. jeex am na benn avertissement Pulum Junior Tek jël Pulum wàcc na Tek Pulum Junior. eh jekk sa xeex ba yaa nga téléphoné. bulum si ñoo tekki jël. bulum si ñoo tekki jël. tekki cokaas na léegi. Poundou Junior jël na tànk tekk jël Poundou Junior jël boobu jël baax na Poundou Junior tekk jël tekk doo tekk bul doo moo ko bëgg a tegal 16 Poundou Junior tekk jël tekk wàcc na tekk wàcc na Poundou fa mu bëgg jàpp fa jàppee lu muy liggéey day jugam day jógoon du jóg Pulum Junior teq jël oh da koy daan wala nu mu koy def Pulum Junior teq jël daan na ko waaw waaw doole doole Pulum Junior ko na ko teq jël bàyyi na teq nee na na teq nee na bàyyeeti na wala boog bàyyeeti na. <laughs> am na lépp teraanga la. ak kooku laa mën de. ngeen préparé. ak ñoom doole. ay jawoy ay jawoy bëgg nuyoo rek nuyoo. mais jox leen bi. maa ñaan nuyu si Jésus Christ sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax sant sama ñaari waajur bu baax a baax. nga daanee ba léegi kenn gisuloo dem. waaw maa ngi nuyuwaat baax di waa Guédiawaye bu baax a baax waaw lamb la rek yaa ma gën a xam dama daan ba pare nekk sama bopp quoi wax dëgg fa yàlla mënu ma dama ba ma daanee mënu ma woon génn lamb ñëpp lool. rek agogo dafa diis. waaw dama bëre agogo dama bëre ak moom ak feebar barki Yesu Kirista yàlla xam na li may wax. dama bëre ak moom feebar. feebar feebar bu métti. dina daaloon làmb ji bu yàggoon damay ñàkk làmb ji. comme bu yàggoon damay ñàkk làmb si biir géew. am na loo daaloon. comme fu ma wax moo ma may ma am si kawam. non du du du dara may entraîné sama bopp trois séances laay liggéey damay jàpp su ma entraîné woon rek liggéeyu ma fatigement bi moo ma jàppoon nag. bon mais waaw sant yàlla bu baax mais nag gars yi ñoo ñu bëre. yan gars yi. moo kànka dañoo ñu bëre wala Tafa Mbër. waaw ah, jaadu na bëre ñoom. jaadu na. booy Dakar sax waxoon naa ko suuf mais daan combat ma. waaw moom moom génn na. waaw ñaari ñooy maa moom dana laale. Ah. lamb la. waaw man dama leen woo plateau. non yaa ma ko wax invité ma yaa ci yow la des pare naa. Ah. waaw. Eumeu Sène Junior. waaw ah, ngay sax fi Maliou. wasaar la seet waay. Ah, bi bu la fekkoon ci digg géew bi nga sottee ko gala doo. Dóor Baye Fall ngay yëngatu. boobu bu la war. mais nga daan. boobaa ak léegi toog nii rek di xaar. waaw mais dana war rek gars yi nañu bëre boobu. xam nga gars ah Moussa Ndoye boobu combat la ñu bëre bu fekkee dara dara ah, mu koy bëgg a fàtte ah may ñu bëre mu ñor combat la a nee na bay gàllankoor. day mbalal day mbalal moom ay ngeen Pape moom ay ngeen kii dara bëri gàllaaj. mais tey làmb ji neex na bu baax waaw dañ waaw. dinaa ñëw ñëwal waaw. fay. waaw mais ndànk fay. man wagala moo tax man mooy loolu. nga nga booy am combat nga toog boobaag léegi dama ci ay tuñ. waaw man maa tijji saison bi man ak doomu jaaw. boobaag léegi dafa yàgg waaw boobaag ngeen xeex xeex bu métti nag. boobaag loolu boobaag léegi dégg dégg nga ku ma laaj déggoo ko de combat bi moo ma indi moom laa bëgg a samp ndënd après. diggante Zarko ak Mbaye Gouye. waaw booy yëpp fere naa leen fere naa leen 27 combats 6 défaites benn benn match nul 20 victoire. dem ci kaw jot na na booy ñëw ma may leen chance defaral leen. billaay wallaay may nga ko jël ñaareel ku daanu ku daan ku daanu ku daanu soxla naa la waaw ku daan ak kuñ daan seen lamb lamb coow la de waaw lamb coow lan ñii dañoo yor dañoo yor seen siro rek toog seen kër di ko naan ñun naanuñu yooyu billaay wallaay ku ma ci jàpp ñu for la ku ma ci bëreel ñu for la billaay wallaay kontaan naa rek laa lay wax gis nga bool bool ni ñu demee stade bi nga dugg ci ñoom. waaw léegi nag man bool bool damaa daan bool ba sonn. ba passé moo kànkam du ne stade bi mbay gi gi du ne stade nga dugg ci bool man mbëru bool bool mosuma daan. mbay jub ci la bokk. mbay jub du ma daan incha allah ma koy mu neexee yàlla. nga teg loolu. ñu ñaan yàlla rek. jëw bi nag dama la koy yeggee ñëpp nee nañ paa nga jël. waaw man maa ci wax kii man man maa jël combat bi man maa jël combat moom Mbaye Diouf. ñëpp nee nañu baa la jël. Mbaye Diouf day day champion bëreeg ay champion yu bëri. daan na ay mbër yu bëri daan na ay mbër bëreeg Balla Gaye daan ay yu bëri lamb nag dafa laaj sàmm na nga bëreeg ay champion looloo tax man maa jël combat bi kii man maa jël combat bi. waa léegi na di teew ko mu wax. waaw moom mooy loolu. combat man maa moom jël moom du si dara man maa ko jël man man en personne man maa jël làmb ji. da ngaa jàpp ne foofoo gënoon nooy. ma loolu am na ñu doon wax ñooñu ñoo bañ. mais sa diggante ak ay armée. Mbaye Diouf Mbaye Diouf noonu dafa war a bëre. loo jëloo ko man Mbaye Diouf su pare woon pour bëre man ma bëre moom may Diouf di champion ku ne na ma bëre moom nekk nit ku baax nekk nit koo xamante ne day dundal làmb Mbaye Diouf dafay tàkk saan yu bari Mbaye Diouf di champion Mbaye Diouf di war a ñëwaat. yàlla nañu yàlla nañu yàlla may ndam ci kawam nag. waaw léegi man maa jël combat bi waaw. yow léegi da nga la. ndax ñun suñu morom dañuy bëre suñu ay mag. man maa ngi soog a mag te kii la dama ko respecté ndax sama mag la sama papa la damay ñaan yàlla rek jour combat ba yàlla ànd man. nit moom du dóor papa bi nga ko dóor. non dóoroo. non non jàpp naa ma ci ne. non ma koy jàpp daan rek. waaw damay ñaan yàlla rek jàpp ko daan. yàlla ak waa géej waaye ñu waajal ma xam naa ne bawol bawol moom dañuy duwee saat. waaw dañ ko tuy bu fees dell. man dem samay mbokk ñëw samay mbokk waalo waalo yi sama gars yi ñoom papa yi xam ñoom laa déggee saal ma daan sa waay jël bu rëy baax na waaw. mbokk yi combat baa ngi dox ci diggante ñagas de. ak caatu waalo de caatu waalo ñagas de moo ñëwoon ginnaaw ngeen boo ngeen lu bële li teg ci morso bu xonk bi ñagas de door na léegi ñagas defoon ndànk ñagas de defoon ndànk ñagas de caatu waalo door na ko ñagas de. sànq bi ma ko laajee a yomb caatu waalo door na ko ñagas fàq na ko fàq caatu waalo ñagas de caatu waalo eh xale xeex ñagas de caatu waalo dafa ndànk ki nga bëre du ndëgg du cuune dina ko doomu daanu dina ko doomu daanu waaw ñagas caatu waalo. ñagas da koo bëgg a jël tànk bi ñagas de caatu waalo daw na jël ko ñagas de caatu waalo ñagas jël na tànk ba da koy daan da koy daan takk na ko ñagas takk na ko ñagas takk na ko jàpp da koy daan da koy daan da koy daan daanoogul doyel daanoogul da koy daan ñagas de daan na caatu waalo Ñagas 2 daan na Caatu Waalo Ñagas 2 daan na Caatu Waalo Junior, Abdou Yane Faye numéro 2 doon préparé lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar bu wér. na a am ñoom du ma ñoom Alboury mi def dox na ma ko jox Alboury laa soxla. mais ni nga bëree da ngaa ñëw rek dox ci ñoom man ma gëm a déglu moo ñi. biñ laa wér lan dama see bokk. moo ko liggéey si yëpp ñu suuf dama leen a daan ku nekk bu ma daan ma daan naa la. gars yu niveau cinq cinq combats cinq victoire. cinq combats cinq victoire. léegi fan la jëm. man ma jox Albouri laa soxla Albouri. Albouri nga soxla Albouri lii def ko. da ngay ñëw rek teel si kaw waaj. damaa ne ma xeexee sama yaay dafa nekk a xeex. moo tax mais ren moom bu dóor bu doomu jàmbur. mais da ngaa xeex da ngaa xeex waaw maa ngi ñëw. mu yëngal moom moo tax. maa yëngal quoi. ku mu dal sax ba mu bët bi mu soog dama kër bu baax bi

yéen ñett mu ngeen nu ba combat bi taxaw nu ngeen taxawalee combat bi bii nii par exemple Mbaye Gouye Gui Zarko waa diaspora bi ñoo ko taxawal da si remercier ñoom Toumani Pelto gars yi yëpp bu ma bu ma limee fàtte si ñenn ñi parce que waa diaspora bi ñoo ko taxawaloon parce que waa seen lamb TV dañ ko bëggoon après mu jógi ñoom ñu ne ñun ñun nañ ko jot ñu la demee après yi si des yëpp xam nga euh, staff bi léegi dafa gën a yaatu bëri na ñoom pigeon ngi fii ñoom jogoy tout ça Modou Anta jàppale ñu si tamit bu baax moo tax nii nii mu demee nii quoi waaw amul frontière ñëpp la nekkal ñu koy remercier bu baax a baax waaw. lan ngeen jël bu ngeen bu ngeen jógee fii yéen a ngi xalaat yeneen journée wala ngeen ko wala ko demee lan ngeen xalaat. non bëgg bëgg nañu dolliwaat benn ci kaw ñu am tax. laabali. ah laabali. waaw daxul dara dañuy jéem rek. xam nga boo toogee nga tëgg ay combat tamit ngeen toog ba nga xool nit ci ci liggéeyloo lu mu bëriwee am na su su dul dara sax am na lu tuuti looy def ci sa jeunesse su dëkk loolu moo tëgg noonu la demee quoi bu ñu amee doole. merci waay yaa ngi rafet nag. <laughs> arbitre bi sifflé na Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé door na léegi Pokola moo ñu féete à gauche Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 daa mel ni ku bëgg a dem Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé huitième combat de la soirée Papa Kane écurie Thiaroye Pokola écurie Falaye Baldé Papa Kane door na léegi waaw Pokola door Papa Kane door door xeex dañuy xeex Papa Kane Pokola Baldé eh Papa Kane door na ko léegi Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé eh tàcc bi wax déggal tàcc waaw eh Papa Kane touché nañ ko Papa Kane génnal lamb ju doon du jàmbaar waaw ñoo ngay xeex Papa Kane Pokola Baldé xale yaa ngay xeex Papa Kane Pokola Baldé Papa Kane Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 moo ñëwoon ginnaaw Pokola Baldé la ñu jaakaar lool xale yaa ngay xeex bàyyi jàmbur bu bëre ñu ngay xeex Papa Kane Pokola Baldé Ardo Ardo Ardo Pokola Baldé dem na waaw Pokola Baldé dem na ardo dellu si waat Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 xale yi xeex nañu léegi Pokola Baldé Papa Kane Jules Baldé dugg si na ci digg géew jox ko lamba taage rëgg ca làng ga ñëw ci Papa Kane numéro 2 daw na jël ko eh Papa Kane lu muy def nii Papa Kane ko eh waaw eh. maa bëgg lii man maa bëgg Modou Soxla Pokola jël na tànk ba Pokola jël ba da koy daan wala daanu ko ko Pokola Baldé eh bëre leen bëre leen Papa Kane Pokola Papa Kane Pokola Baldé ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex Papa Kane numéro 2 Pokola eh eh eh Pokola eh, Pokola ngay naaj ci Pokola Baldé ngay naaj ci ñi xanaa dañoo wéyalante woon xanaa ñi dañoo namante woon xoolal ko suba dugg na ci digg géew ba teewu koo dem ardo teew koo dem ardo bàyyi ko mu dem <laughs> ee eh, xale yaa ngoog Babacar a ngi noonu waa Caaroy Géej a ngi noonu waa Caaroy Géej a ngi noonu waa Caaroy Géej a ngi noonu dóor Jules Baldé Jules Baldé da ngay kaas lan lay wax Pokola Jules Baldé lu mu wax Pokola dama dama dama Zarko ngoog Zarko ngoog nee na dama leen rey Zarko Zarko <laughs> Zarko waaye maa bëgg lii lii lay dundal lamb ma Zarko xoolal ma Zarko na mu mel mbër day saf mbër Zarko yéen ngay saf Zarko ngay tëj stade bi xale ba nga baa ngoog eh Zarko ngoog eh waay lamb de moo ne lii Habib ba dox na ci diggante Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Zarko de Wos toog nañu seetaan mu yàq sunu làmb Zarko Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 boo ma teelul Jules Baldé dina dugg ci digg géew bi teel ma Jules Baldé Zarko nga yëngale sax ba Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Pokola dem na ardo dellu si waat mu ñëw ñuy xeexaat xeex bu métti mu dem ardo dellu si waat cokkaas na léegi moom Pokola bu doon maay moom damay wàññi xeex bi ndax bu sa yaram tàngee nga sañewaat Pokola. daaw woon na ki nga xamante nii mooy Papa Kane xeex na xeex bi arrangé wu ko waaw Papa Kane fa mu teg foofu la bu mu ko teggi Pokola Papa Kane jël na jël ba baax na da koy teg dina ci du ci génn daaw day daanu day daanu day daanu gàccee doo gàccee daan faj na boo jël tànk ba tëj ko gàcce dóor gàcce daan faj gi noonu mais Zarko làmb dafa lëkk. waaw ñoo fi manqué woon ñëw nañu. barke Serigne Moussa ñaata la kii day ko wax xalaat tey tey du tur muus kii tapet la tey bëréb wasaare wu bëréb wasaare wu ji wasaare Zarko ngi noonu ci diggi géew bi yor na bëgg de wis xolam ma mbay guy gi xale yaa ngi noonu ci digg géew ba ngi bëre te kenn fayu leen ma ñii ñii ngi bëre te kenn fayu leen xoolal ma Zarko Zarko am na butéel bu muy siw ci digg géew bi Zarko mbay guy gi baax na na ama seen si ñoo ngi noonu eh, xoolal ma Zarko gën a gaayoo fi eh, waaye guy am na perkaal bu ñu tàllal di am lu ñu sotti maa koy lem fu mu jëm ak mu ngi koy warale géew ba daje ba daje ba daje ba daje ba xalil kaay xalil kaay Zarko génn na Zarko génn na ay bay guy gi nee na dama koy Zarko yi noonu Zarko pare na <laughs> Zarko deel na ci jumbukaayam Thank you. combat bi boo ànd ak say mbokk la jaaxalu la ah jaaxalu la soo moromam. Ah. waaw la ci moom. bu noonu jëlal ma mbay guy gi muy wax d'accord ngi noonu Nandi Fall <laughs> Paco nee na la mbër ñoom xalin la seen waa koñ la Zarko am na lu ma kaay kaay jëlee ma fii am na lu koy sotti xoolal la ñu koy sotti eh, percal ba dañu koo bët xoolal dañu bëttee percal ba gàllaaj ca kaw jaar eh, ci lamb lamb lépp tegtal la mbay gu gee ngi noonu Mbaye guy gi ngi noonu Pokola Mbaye ne daan na <laughs> jeex na Mbaye lu muy wax pareegul ba léegi de pareegul ba léegi Lieutenant élève tey Malvir góor ci jàpp amul intervention da ngeen noonu ni ma ngay jaar wala boog di suulu Tidiane Faye doo ngi noonu arbitre baa ngi laajte Tidiane Faye pare na Yankaw Tidiane Faye numéro 2 moo la à gauche Yankaw Junior moo la à droite Kaaw Junior ak Tidiane Faye numéro 2 ñoo ngi lewaatoo waaye lewaatoo bi sori na yaa Kaaw Junior Tidiane doomu Dango ko andi ñoo ngi ci ñu ngay lewaatoo bi tax ba mun ta naaw wala day naaw nu muy def ñoom ñaar dañuy la jàpp atul dina ah. 54 Tidiane Faye numéro 2 Yanka Junior Tidiane Faye numéro 2 Yanka Junior Yankaw Junior Tidiane Faye numéro 2 Mbaye Gouye Gui sa pitax bi ñaata Yankaw Junior jokkaas na léegi Tidiane Faye ngi noonu Yankaw Junior Tidiane Faye numéro 2 arbitre bi àtte na leen Yankaaw Junior Tidiane Faye numéro 2 Junior <laughs> Tidiane Faye numéro 2 ñu ngi la waatoo ñoom <laughs> Yankaw Junior Tidiane Faye numéro 2 mais Tidiane Faye mi dafa osé Tidiane Faye mi dafa pànk <laughs> waaw gi kay foo di ko dégg Yankaw Junior Tidiane Faye Yankaw Junior Yankaw Junior Tidiane Faye numéro 2 Yankaw Junior combat spécial baa ngi noonu eh ah Tidiane Faye Tidiane Faye numéro 2 bu Tëngéej ak Yankaw Junior alors Yankaw Yankaw Junior Tidiane Faye abi bàyyi leen ñoo ngi bëre Adama Diouf Yankaw Junior Tidiane Faye numéro 2 ñoo ngay xeex mais Tidiane Faye mi pank la de. Tidiane Faye. Youssou Ndour ah, ay champion lañ de Tidiane Faye dafa mën a bëre mais Yankaw la waaw. dugal na léegi waaw Yankaw dugal na léegi léegi coup. Tidiane Faye jox na Tidiane Faye dox doom nii nii. mais dafa mel ni. kii kii kii kii xeex bi arrangé ah, waaw Tidiane Faye dafa bëgg a international soo. ci loonee. dëgg maa ngi fi rek. dafa mel ni dama la am. ah. ah dafa nuyu. waaw waaw waaw xabaar yi. dëgg bu dox na. ci loonee ça va. naka yëngu-yëngu bi. eh Tidiane Faye. Tidiane Faye dama jël. yankaaw ndànk yankaaw ndànk yanka ka eh carte d'appui est-ce que amul. est-ce que carte d'appui amul. est-ce que carte d'appui amul. Tidiane Faye nee na jeex na. Tidiane Faye nee na jeex na. Tidiane Faye daan na yankaaw eh foo jëm foo jëm. Tidiane Faye daan na ko. Tidiane Faye daan na Yankaw Yankaw daan def quatre appuis Yankaw def na quatre appuis Tidiane Faye daan na ko Tidiane Faye ndaanaan la waa père maa ngi lay ziar war a man nañ bëreeg man onze combats dix victoire benn défaite dix combats défilé 2013 sama diggante yan kaaw fukk fukk maa ko man yàlla xam na ko boo moromam. ak bàyyi kax léppam parce que xam nga moo tax moom jàpp na moo man moom moo ëpp doole moo tax ma bëree conseil bàyyi kax làmba ji xam naa ne bés bu ñu jàppantee su ma faaxatee tànk yi amul dara tànk yi baaxul kese moom rek laa doon xaar boobu saari dañ maa sas. wóor na yàlla dañ maa saay bu saay bu ñëwee rek dama koy gis saay bu ñëwee dama koy remise bëgguma woon contact bi xeex laa bëggoon non moom moo ëpp maas mais maa ko ëpp fuuf billaahi maa ko ëpp doole Ada waaw onze combat def dix huit ñëwaat défilé mbay ko yooyu noonu ci cumbu gaal yi waaye yam ci diggi géew bi mbay ko yooyu noonu ci cumbu gaal yi waaye yam ci diggi géew bi lay fay Ousseyn. bi mooy ñaata combat. bi mooy sama quatrième combat. daa mel ni da ngaa teel a daan de teel a yeewu supporter. waaw tey moom sama combat bi waaw teeluma daan sax combat bi xaw na métti quoi dama xeex. xaw na métti lu ko métti. maanaam xeex bi quoi xeex bi. xeex bi ko métti quoi. arbitre moo moo nangu moo moo ko nangu samay loxo quoi. moo ko nangu samay loxo. waaw arbitre la ko mooy loo woon ci. waaw. am nga trois victoires benn défaite. fan nga jëm. waaw fi ma jëm mooy nañ ma jox samay morom rek ma bëre ñoom ku si mel ni tuddati mooy raxu maar la bi. réparé na ñoo ñu bëre. ñu ngi dugg ci réparé. réparé mbala Liss Ndiago bu ñëw baana. nga teg sa loxo diis la. non foofu baana fu ñëw ba ku si ñëw si ñoom baana. li nga nekk doomu Ndiago moo tax nga bëgg a jëflante ak ñoom. noonu ne làmb lañuy dund. waaw làmb mooy yaatu quoi ku ne mën a am moromam. boo gis ngeen caatu réseau noonu. liggéeyal rek ba ci kanam yàlla baax. waaw yàlla baax na waaw. suñu naam booleel rek pare nañ pour bëre ak moom. ñagas dëgg bu paree pare nañ. ñagas dëgg. ñagas dëgg diis na de. na ñëw fayal doomu ndeyam doomu ndeyam laa ñu sànq na ko ñëw fayal. kon na waaw.

door ba mu sottee ko Mbaye Gouy Gui pare na Mbaye Gouy Gui ngi etu réew am na sunguf ba mu yor raayoo da koo bëgg am na ñetti nen yu Zarko pare na Mbaye Gouy Gui pare na Zarko Mbaye Gouy waxante ñoom ñaar kenn xamul ñoom ñaar la ñuy wax lu mu doon ñu koy pil ku ci nekk fa moo taxawee ñoom ñaar ñëpp fii ñu taxawee la ñu bëgg a taxawee ñu xool kon mooy gañeegum kuy dem wala kan mooy taxaw Mbaye Gouy Gui gagné na dañoo tiraat ñoom ñaar toj na Sokh toj na nen Sokh Mbaye Gouy yeer na ñoom ñaar bi baa ngi wax ak ñoom nee na ko fii taxaw kaay fii laay taxaw arbitre ba woo na ko woo na ba xam pare nga laaj na mbay gi ba xam pare na arbitre bi sifflé lu muy ñaan di tari na ko ñetti yoon tibb na Zarko Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy Gui tàllal na ko loxo ba Mbaye Gouy Gui à gauche Zarko à droite ñu ngay lewaatoo waaye lewaatoo ba sori na Zarko ngi taxaw ko xool daa am lu muy ñaan wala boog ay feemam lay def te ji làmb lewaatoo bi sori na combat bi mënut a yomb Mbaye Gouye abit bi waat na leen Zarko Mbaye Gouy Gui Zarko Mbaye Gouy nee na ko maa ngi lay gis kaay Zarko <laughs> nee na ko ngi lay gis kaay Mbaye Gouy Gui loxo Mbaye Gouy Gui da loxo Zarko na ko maa ngi lay gis Bordeaux daf loo ba ñëw wàcc nañu ñoom ñaar raas ndaama loolu fi andi nu nuy def Zarko mbay guy gi jege yantoo nanu léegi dañuy xeex wala dañuy bëre combat yu coow li bëri woon xas-xas loo bi bëri woon na da ngay màcc tuñ ki naan ko wagaga kii naan ko da ngay dof doflu waaye mbokk yi lépp lépp lépp lépp day lay leer ci diggante Mbaye Gouy Gui ak ki nga xamante ni mooy Zarko kii nga nga waa Grand Yoff ànd ak waa Grand Yoff Zarko ànd ak waa Bawol abit bàyyi leen bàyyi leen ñu bëre bàyyi leen ñu bëre Zarko Mbaye Gouy Gui lamb foofu moom round d'observation dëgg public ba Zarko ko Mbaye Gouy Gui faaw ñu xeex xeex mënu cee ñàkk Zarko Zarko dafa bëgg a dem wala lu mu bëgg a def Zarko Mbaye Gouy Gui ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar Zarko day wàcce ka yegg demi flexion wala lan lay def Mbaye Gouy Gui wàcc na kenn dooragul kenn songagul liwaatoo bi yàgg na ñu ngay xeex Zarko Mbaye Gouy Gui eh Zarko doon na Mbaye Zarko doon na Mbaye Gouy Gui Zarko Zarko Mbaye Gouy Gui Zarko doon na Mbaye Gouy Gui kuubu dal Mbaye Gouy Gui Zarko arbitre bi sifle waat na Kar Ko Mbaye Gouy Gui Zarko ngay demee wet Zarko day xeex moom door na ko ku Zarko door na Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy Gui daa mel ni jàppante bi la bëgg Zarko Zarko ngay xeex moom door na léegi Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy gi Mbaye Gouy Gui daa jël ku Mbaye Gouy Gui daa jël ku Mbaye Gouy Gui dafa jël ku Mbaye Gouy Gui daa jël ku dafa kaawu kaay dindil Mbaye Gouy Gui ku